ya karena ni watan bi kontan nende wasalbi. kontaan ngeen waaw jërë ngeen jëf jërë jëf alaaji bismillah jërëjëf sëriñ baarakallah yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bi nga xam ni ki ko moom mooy rasulullahi mu di yonentu boo xam ni fii ak yaa ngi toog ci jotaayam yaa gën a tedd kudul yow mu di yonent boo xam ni fii ak yaa ngi déglu ay njàngaleem yaa gën a tedd kudul yow mu yonent boo xam ni fii ak yaa ngi koy yëg ci sa xol yaa ëpp sécurité kudul yow moom rasulullah yi ñaan sunu mbëggeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli nuyu kilifa yi ronu jotaay bi yépp nga xam ni tey jii ku fi teew ki tax nga teew mooy jàmbaari Seydina Mohamed ji di oustaz Mohamed njaay nga xam ni xam-xam bi ko yàlla jox pédagogie bi yàlla def ci moom allahuma la adur da ko booleek mbaax boole kooku yiw boole kooku yar boole kooku yëg nit ñi léegi nee naa ko saal bi ni mu feesee ñépp yiw la nu wuy li waral loolu mooy sa mbaax Mouhamed yàlla na yàlla yokkule la dëgëral Oustaz Assane Diouf nu ngi lay nuyu di nuyu waawal fajiri gépp bi nga xam ni Oustaz Mouhamed foofu la ne yal na yàlla yokkule leen di nuyu Oustaz Mouhamed Jamaka docteur di borom xam-xam bu mag a mag a mag ak kilifa yi yoroon na jotaay bi yépp bàyyiwunu kenn waaye nuyu Moulay Alxaaji Abdul Aziz Mbay di ko ndokkeel Abdul Aziz ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla yokku la dëgëral yow ku baax rekk sopp na la nit dooni ko ñépp la sopp da nga nan ko ku bax mbax ne ci mom sopp na la ndax am na ño xamni yalla baxal seen xol leeral ko ba ku ne ci lu bax nu bëgg la am na ño xamni nak nag seen xol mo tilim yalla tilimul ko de ñom ci seen mbop ño tilimal seen xol fac fas ca euh, fat ca ba ku du ñu la bëgg yow Abdul Aziz ku bëgg yonent bi bëgg la bàyyi bu saxo da na wax ni fii ma toll man ibu ku ma bëggul rekk bëggoo rasulullahi waaye ku ma sopp nag yonent bi nga bëgg waaye yow Abdul ku bëgg yonent bi bëgg la mbokk yi nañu ñaanal oustaz Mouhamed njaay mii nit ku yiw la nit ku baax la nit ku tedd la keroog bi mu taggee yonent bi ba ñu may ko biyee Makka ka ko may bii màkka daf koo gërëm ba noppi ni ko waaye maa ngi lay ñaan màkka day mënuma faa dem mukk te sama yaay demul loolu tedd nga googu kenn xamul lu mu doon waaye la ko waaj a tontu daf ni ko dangay baax di nga xam ni maa la gën a baax yàq sa yaay yépp laay boole yóbbu leen makkatal mukaram ñu ngi ñaan sëñ Fallou Diop Gabon la yal na yàlla kawel aljanaam yal na yàlla yeesal yërmandeem dama doon nuyoo rek di leen wax sunu digganteeg Mouhamed mii bu nu sañoon ñoo fi jiitu ñoo fi toog ñooy mujjee ñëw waaye xam ngeen bisu tey bii li tax gisu leen euh, mboolem ñi tagg yonent bi de fii tey mooy programme yi dafa bari lool lool lool lool conférence yi bari ci dëkk bi. su ma fi bàyyi koo am na ñu may xaar man mii yàlla xam na ko waaye li tax gisu leen ñu bari ci ñiy tagg rasulullah mooy firikat yu bari dañoo conférence ji tey ñii gàmmu ji jàngkat yu bari ñii conférence yi ñii gàmmu ji waaye Mouhamed Ndiaye mii tedd mbaaxam yiwam yëg nit xam-xamam doyloom maa ngi koy ñaanal ci darajey rasulullahi balaa déwén yàlla na ko yonent bi jox mu am carte giris jox ko kat kat balaa déwén yàlla na yàlla yokk ko nuyu soxnaam di ko ñaanal yàlla bu mu am wujju ci darajey yonent bi alayhi salaatu wasalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu